vous êtes vous êtes lent soit j'ai perdu de l'audience ça va m'étonner coucou salut salut <laughs> vous allez comment les chéris vous allez comment vous allez bien sais pas euh, si c'est moi j'ai perdu de l'audience ou c'est parce que j'ai plus de gars ou c'est parce que je suis pas au Sénégal, je pas. Je pas, je pas, Vous allez bien les amours Tu es ravissante, euh, merci, comme tous les jours, comme toujours, euh, franchement, euh, toujours, toujours. On attend les autres. Namonala Malrao. mal raaw euh, ah j'avais trop hâte de faire mes cheveux j'en avais marre de la petite tête ça m'a saoulé les cheveux courts heureusement you know j'ai pu uh, you know get my hair done that was very stuff vous allez bien vous dormez toujours c'est la grasse mat ça na ngeen def bon je vais faire comme ça c'est pas trop classe ah c'est dimanche hein je suis chez moi je suis tranquille je suis à l'aise Et du coup, on va avoir beaucoup de conversations, avoir plein de choses à se dire. Et euh, voilà, donc je vais pas m'asseoir comme ça. Je sais que ça se fait pas, d'autant plus que je suis mariée à un grand monsieur. Donc je vais gentiment, déjà je vais gentiment baisser mes jambes et tranquillement les croiser. Voilà, je pense que c'est mieux. Sinon, si je me mets trop à l'aise, ça risque de faire le tour de la toile. Naboudage s'est mis trop à l'aise dans son salon. Comme moi, je n'ai pas le droit de me mettre à l'aise et que tout ce que je dis, Tout ce que je dis, ça fait la une. Tout ce que je dis, ça fait la une. Tu vois Donc, je préfère m'asseoir tranquillement pour ne pas que mes jambes et mes fesses fassent la une. Voilà, parce que, euh, parce que tout le monde sait que, you know, I'm the buzz. You know, no matter what I do, I'm the buzz. Je fais le buzz quand je veux, je crée le buzz quand je veux. Euh, disons que je suis sur les réseaux. Là, je vais bientôt prendre ma retraite parce que vraiment, euh, voilà, voilà, vraiment... Euh, ça me dit plus. Alors, Sunouadji Nyouna, salut Madame Bergan, ravie de te revoir. Merci ma chérie. Euh, Kira Faye. Alors, j'attends tout le monde. Déjà, je vais essayer de mettre de la musique, mais je sais pas, avec Facebook, c'est trop chiant. Dès que tu mets un truc, ils vont couper et tout. Nabou, Sénégal, s'il te plaît. Coli, euh, Anna, John. Non, je ne peux pas Mounibis actuellement. Parce qu'actuellement, au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois, moi je suis tranquillement, vous avez vu, j'ai pris du poids. Un sang et de mon amiaram, de mon gel poids et tout. Donc, mon menu petit Sénégal, accès au tchou, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dès que je fais beaucoup de tchou, qui kaki, qui kake, qui kaki, qui kaki, qui kaki, qui kaki, qui kaki, qui kaki. Tu vois ce que je veux dire? Et là aujourd'hui, euh, j'ai un petit message pour quelqu'un. D'accord? Et cette personne-là, c'est un monsieur, euh, bon, vous savez, moi, j'interviens en, en, en, en, truc, j'interviens pas comme ça. man su ma intervenir damay intervenir si loo xam ne dafa am sens dafa am dafa dafa dafa nekk loo xam ne ça touche à la femme mais je n'interviens pas pour un tel à insulter un tel pour un tel à insulter un tel parce que moi je vous ai dit je ne suis pas dans la politique je répète je ne suis pas dans la politique. Naboudash a dit qu'elle n'est pas dans la politique. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la politique, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler. je vais parler parce que j'ai de l'audience. Les gens m'écoutent et je vais parler. Je vais dire ce que j'ai à dire. Même si je sais que ce que je vais dire va créer des gens, ils vont m'insulter. C'est pas grave. Vous m'avez toujours insulté. Je me suis fait insulter ici de gauche à droite. Vous avez l'habitude d'insulter les gens. Quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un vous dit la vérité ou dit un truc, c'est les insultes. Or que toi qui insultes la personne, tu n'as pas fait mieux que la personne. Tous les gens qui insultent ici sont des chômeurs. Il n'y a que les, les, les, les, les, les, les, les, les, les comment dire, les SDF les chômeurs, les sans domicile fixe, les femmes qui ne sont pas mariées, les frustrés de la vie qui insultent. ñoom rek ñooy saaga saagakat yi ngay gis yëpp fii xëyuñu gontuñu liggéeyuñu koo ci ne woon foo ngay liggéey mën na la maa ngi ni fi mu nekk damay wër ba tey koo ci ne woon fan nga dëkk mën na la génnee la kenn mun mënu see génne sax xam nga quand quand les gens disent que juste un truc quand je vois euh, je vais revenir dessus quand je vois euh, euh, certains commentaires quand je les lis moi mal je me dis quoi là on est novembre décembre weer année bi dee at bi dee bokk tu vois dans quelques dans quelques semaines dans quelques semaines dans six semaines on est en 2023 il y a des gens ici du premier du 1er janvier 2022 ba tey ñu ngi saaga te absolument ils n'ont rien et moi que vous êtes en c'est vous qui développez le pays yéen yéen a koy développé mais regardez votre comportement vous insultez de du du du du matin au soir des gens vous da ngeen di saaga sans sans sans sans même que la personne vous connaisse. y a des gens xam ne je les connais même pas je les ai jamais vus ni d'Adam ni d'Ève musuñu toog ma toog mais dès qu'ils te voient ah toi ci toi ci toi ça et c'est c'est vraiment un truc boo xam ne c'est dégradant et à la fin c'est saoulant mais comme moi je suis blindée tout ça je regarde pas mais ce message il est adressé à un tonton. un tonton boo xam ne il a fait, je pense, sur Internet, je crois, cinq ou 6 vidéos de moi. Et je n'ai jamais répondu à au tonton. Tonton, je t'ai jamais répondu. Mais aujourd'hui, je vais te répondre. Parce que tonton, tu es spécialiste, quoi, tu es génne démb nit euh, tonton parce que déjà tonton c'est un titre qui est donné à un homme xam nga yow déjà góor nga et entre guillemets je suis pas sûre tu vois parce que j'ai jamais entendu euh, musuma gis dégg sa gel te musuma gis sa jabar te musuma gis nga wax sa waxu jabar donc je suppose que yow takkoo kenn te célibataire et tout ça bon bref c'est pas mon problème mais tonton moi je pense que tu appartiens je pense pas tu appartiens à benn genre au clan politique tu vois ce que je veux dire que je respecte énormément mais je pense que tonton il y a des choses yoo xam ne c'est moche de te l'entendre dire Et ce tonton, il s'appelle Mola Morgan. Euh, tonton Mola Morgan. Mola, I don't know Morgan, I don't know Mola Morgan. Euh, tonton Mola Morgan. Parce que Mola Morgan, je vais déjà sortir mon téléphone et aller sur YouTube. Mola, tonton Mola. man duma la saaga tu parce que t'es mon tonton rien qu'à voir ta ku xool say siddit bopp rek xool say siddit xool sa bopp bi say siddit xam ne mag nga léegi tonton Mollah Morgun xaaral ma tàppee Mollah Morgun ñu xool ñaata vidéo nga def ci man comme ça sénégalais yi mën a comprendre euh, je suis pas sur YouTube là si attends attendez je vais sur YouTube ah Mollah Mollah Mollah Morgun je vais écrire Mollah Morgun Nabou Dash parce que mooy référence bi Mollah Morgun Nabou Dash Mola Morgan yaa ngi nii euh, Mola Morgan critique Nabou Dash ça c'était il y a deux mois ok euh, Mola Morgan donne une leçon à Nabou il y a un mois euh, Mola Morgan vs Nabou Dash il y a un mois. Euh, donc Mola Morgan su ma tapee Mola Morgan Nabou Dash j'ai plein de vidéos de Mola Morgan qui parlent de moi par-ci par-là affaire de Nabou Dash Mola Morgan Mola Morgan Nabou Dash Mola Morgan xaw Mola Morgan ay Mola Mola sa tur dëgg nan la tonton Mola. d'accord naa ne marche. tonton Moula Morgun xam naa ni. Euh, euh, tonton. taxawee sa baay ñëw bu xaalis taxawee sax yaay ñëw. Eh, dégg nga Sonko bàyyi jàmbur la bàyyi jàmbur bu woo ay doomu jàmbur waaye doomu jàmbur yooyu seen baay yi ña ngi ca kër ya kon doomu Ousmane Sonko bu ko neexee toog ne man sama baay sama baay bi ngeen woo nag. li mu wax sax amul génn amul boobu xaar mu wax ba muy critiquer sama personne boobu moo ma gën a neex. jaral lu ne déggu ma ne la même maraboutage pour sexualité rek sénégalais da koy jaral sëriñtu bëgg papa Mollah Morgun vous avez vu les vidéos que je vous ai montrées sur Mollah Morgun alors euh, tac tac tac El Hadj ferme-la s'il te plaît El Hadj sur ma page et je pense que c'est toi qui devrais la fermer pas moi d'accord ça c'est déjà sawaruma ci say wax parce que moi j'ai toujours dit ceci euh, Papa Mola tu es sénégalais d'accord mais tu es un émigré jusqu'à là parce que man je suis au Sénégal j'habite au Sénégal jusqu'à là je n'ai pas vu une petite boutique buñ ñu ne Mollah Morgun moo ko moom gisuma benn entreprise bu ndaw bu ñu ne Mollah Morgun moo ko ubbi gisuma ñaari nit yu xuccoo ñaari nit yu xuloo ci internet parce que Mollah Morgun fayu leen seen salaire te man at least ak lu ma waay mën ci waxal ak tout ce qu'on peut me dire travaille au Sénégal j'ai mes activités au Sénégal dem naa ba am samay kër bopp biir Sénégal xam nga man buñ naan sur 100 au moins 5 wàcc na ma le reste comme on dit yàlla moo xam nu mu koy defee mais papa Moula Morgan man xaw ma say at mais ku la xool rek xam naa ne yaa ngi laal 60 ans laal nga cinquante ba dugg 60 ans te gis nga man boo doon saaga boo ma doon saaga fii ba suba du ma tontu. parce que man du ma tontu ay saaga man jamais jamais jamais j'ai répondu à des insultes ñaari nit ñetti nit ñoo mës a saaga ci internet bi tata Fatoumata Dansokho te di ma ko tontoo la preuve c'est sur YouTube Khalifa rappeur tontu bi ñëpp gis nañ ni mu demee ak yow mu may tontu tey euh, tonton Mollah Morgun démb dafa am benn vidéo bu ma gis euh, ngay wax ci Marème fay tata Marème Faye Sall nga ni tata Marème Faye Sall Euh, les propos ah de Mola Morgan Mola Morgan ni tata Marème Faye da doon taxawaalu que juddoowul Saint-Louis que entre parenthèses c'était une femme de mœurs légères jigéen bu oyof sër la woon et dafa bëggoon nawetaan et que ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu nekkoon foofu nawetaan je sais pas ñëpp ba wax ay butigu naar ak ñëpp kii nañ ko j'ai pas envie de dire des gros mots parce que quand même je m'adresse à la première dame Donc moi, je répète ce que, les, ce que Mola Morgan a dit par rapport à la première dame. Euh, quand j'ai entendu ces propos, je vais d'ailleurs les mettre pour que les gens puissent s'identifier à ce que je dis. Quand j'ai entendu Mola Morgan parler, de, par, parler comme ça, du, du genre euh, de dire ces bêtises-là sur une première dame, dire que c'était une femme de mœurs légère, dire que telle, telle, ou telle personne ou telle, telle personne a couché avec elle, dire qu'elle elle écarte les jambes, dire que si, dire que ça. Moi, je pense que Euh, si on doit s'attaquer aujourd'hui euh, dans le plan politique on doit s'attaquer au président directement son excellence monsieur Macky Sall c'est pas Marème Faye Marème Faye n'est que la première dame elle n'est pas le président du Sénégal ni la présidente elle n'en est absolument rien elle est l'épouse d'un président vous n'êtes pas d'accord sur la politique euh, que son excellence met en place d'accord moi-même je suis pas d'accord avec plein de choses moi-même je suis pas d'accord avec lui moi-même je suis pas dans ce régime-là et j'ai toujours dit que je suis pas dans ce régime-là d'accord mais de là à insulter sa femme ba di wax ay ñu mu doon nekkal ak même si c'est faux même moi je sais pas hein, moi personnellement je ne suis pas de son entourage euh, xawma li ngay wax mais moi je pense que c'est honteux Mollah Morgun moi je pense que si honteux et puis dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa ruslu nga nekk góor tollu ni nga toll am say at yow yaa ngi émigré ci dëkk jàmbur yi yow lan moo tere ñëw Sénégal man xam nga li ma à chaque fois li may wax gis nga nit ki man balaa nga maa saaga man saaga yi ñor ma neex ma day fekk nga nekk Sénégal même bu doon dangaa yor bongo rek bongo yor bongo tëgg bongo rang dang dang dang ñu la ciy fay ma dama lay naw mais yow tëggoo bongo xam nga ba defoon ni Papichou sa tëgg bongo ñëw sama xew ma baataral ay ay ay cinq cent mille rek un million I war nga def ni tikeloo ba ñëw sama xew organiser ko ñu jox la dara nga lekk ginaar def lu la neex d'accord mais yow nekkoo Sénégal nekkaanoo Sénégal amoo fi benn valeur ajoutée d' accord naa yaa ngi xeex son excellence monsieur euh, euh, Ousmane Sonko je suis d' accord avec ça ça c' est ton opinion politique mais je ne suis pas d' accord ngay jàpp jigéen ñi ko ku wax ak yow rek nga ne ko yow caga nga sa yaay caga la sa papa dafa tëddeeg sa yaay ci douche ba après kii mais c'est c'est c'est c'est dégradant nekkoo defaral Sonko da ko nekk di yàqal parce que qu'est-ce que les gens vont dire les gens vont dire que mais je connais des gens yoo xam ne ils sont dans le parti de pros c'est des gens intellectuels des gens yoo xam ne dañoo warmal jigéen ba pare am respect ci nit ban respect nga am ban respect nga am ban respect nga am ban respect mais je t'appelle ak loo mënti wax ak loo mënti wax tata fay Faye Sall nekkul sa moroom nekkul sa morom baay nekkul sa morom ndey parce que man musuma gis le père de Mola Morgan sa papa na la tekk ci gis ton père n'a absolument rien ici au Sénégal yow ci sa amoo dara Sénégal la moindre des choses tu respectes l'identité étatique de la dame qui est aujourd'hui qu'on le veuille ou pas la première dame du Sénégal qu'on le veuille ou pas qu'on le veuille ou pas elle est la première dame jusqu'en 2024 mais de là à l'insulter de pute dire qu'elle faisait la pute c'est une femme de mœurs légères qu'elle a écarté les jambes que naam tuddee na ko que ti que ti que tu dénigres l'image de la personne et malheureusement vous êtes comme ça au Sénégal jigéen bu jug wax rek ngeen ko cagala waaw nu mu def ba am ay këram c'est une pute elle a couché avec un tel elle a fait ci c'est c'est ce n'est que ça au Sénégal y a que ça au Sénégal y a que ça y a que ça y a que ça diw cagala te dégg naa diw diw kat ni mu amee xaalisam nii rek en plus le pire le pire le pire le pire le pire le pire mooy Mollah yow est-ce que am nga seetu est-ce que tu as un miroir est-ce qu'il t'arrive de prendre un miroir et de te miroiter est-ce qu'il t'arrive de prendre un miroir de te miroiter qu'il t'arrive de prendre un miroir, de te miroiter et de t'enregistrer et de t'écouter. D'écouter les absurdités et les, et les méchancetés que tu dis aux gens. Moi, personnellement, combien de fois tu m'as attaqué Combien de fois tu as attaqué ma personne Combien de fois tu as dit des absurdités, des abominations sur moi Je ne t'ai jamais répondu. Ça fait deux mois, trois mois. Le nec que tu m'as, je t'ai pas répondu. Je t'ai répondu parce que tu as parlé avec la première dame. Et moi, Mariam Fessal, j'en ai absolument rien à cirer. Je ne la connais pas. Mais moi, je trouve que c'est honteux. moo Mollah Morgun de ta part nga jàpp pendant deux heures de temps di yàq dërëm nit ki naan ko cagalaak di tëdd nag moom ak kii ŋaayi na ko dafa bëgg nawetaan nag ak lu mu doon ak lu mu mënti doon je pense que attaquer euh, comment ça s'appelle attaque euh, comment ça s'appelle attaque attaque le président demal ci Macky Sall nga ne ko yow diw ma doxaan doxaan nga diw man soo bëggee sax ma wax la ñum doxaan doxaan nga diw doxaan nga diw d'accord naa mais Tata Marème Faye elle n'a absolument rien à voir absolument ça veut tey demain par exemple moi par exemple moi je prends l'exemple demain moi si je suis député ou quoi ce soir si les gens sont contre moi ils vont m'insulter vous êtes en train de montrer le chemin xale yi tey ku fa jug di saag ci la ko gisee saaga ban importance la am Assane Diouf gis ngeen ko saaga na bañ jëli ko indi ko fii fi mu ne bara saaga mi ngi rek la jàpp ñaam borom ça c'est un exemple à prendre tu ne peux pas insulter la première dame comme ça et puis toog tu dire que tu es en France whatever you are que personne Et aujourd'hui, si elle lance un mandat d'arrêt contre toi, mais yo, tu, tu, tu, es dans la merde. Tu as a wax wax wax ba sank sa bopp Té nga nopi moo la mo gën taxé xal pros. Pros yoni wu len ngeen saga. Pros yoon wu len ngeen saga yaayu jambour yi. Pros pros musuma ko dégg mu saga. mu sell mi pros musuma ko dégg mu saaga yaayu kii que ce soit pros musuma ko dégg mu saaga baayu kii que ce soit pros musuma ko dégg mu saaga bàjjanu kii que ce soit musuma ko dégg yen yéen a ngi yàqal procès yéen yéen a ngi yàqal procès parce que aujourd'hui xoolal média yëpp reprendre nañ tu insultes une première dame sans retenue sans retenue comme ça parce que tu n'es pas d'accord qu'on a arrêté le journal je sais pas Pape Alé mais Pape Alé on l'a arrêté di li mu def moo xam moi je sais pas du tout je suis pas là-bas mais tu peux faire des marches tu peux faire des trucs passifs comme Prost il fait mais yéen au lieu que ngeen kaasal seen bopp dans le sens normal vous êtes là à diw saaga diw kii caga caga rek ngeen am caga rek ngeen am c'est pas un autre mot caga rek ngeen am caga rek ngeen am c'est pas un mot c'est sûr que yow Mollah Morgun si on rentre dans ta famille y a pas de pute là-bas tu es sûr tu es sûr que bu ñu xuusee say mbokk amul amul kuy taxawaal yow tu es sûr tu es sûr Mollah Morgun que t'as pas de t'as pas une traînée qui est dans ta famille tu es sûr toi Mollah Morgun rek tu es là waaw gars yi euh, léegi kii moi c'est honteux moi hier j'ai vu la vidéo mais j'ai pleuré pour Marième Faye je me suis dit mais attends je me suis dit mais attends y' a plus de respect y' a plus de respect amatoo leen respect benn kilifa diine Sénégal amatuñu respect kilifa amatuñu autorité xàmmetoo leen kenn yéen daal jug saaga rek. donc ça veut dire que ni ngeen di gis nga en fait le pire c' est quoi gis nga Mollah commencé ngeen loo xam ne seen loxo lay naaj dans le sens où tey imaginons proche de régime bi. que son excellence euh, Sonko soit le président de la République du Sénégal et je le souhaite incha allah imaginez mu jël bi ça veut dire que. tey suñu demee ba d'accord ñu ci pros donc dañuy saaga jabaru pros pour mu wàcc tu es minable tu es minable et puis tu es un petit tu comme ça gis nga góor buy saaga jigéen lu tuuti la yow nii nga toll amul ma respecté wu ma la fenn parce que déjà tu es hideuse te fu ñu la fekk takk ngay def yow ku la xool xam ne takk ngay def gis nga volet boobu ñu may jiiñ ci yow la takk ngay def takk toog naan ay mais tu tu es tu es ridicule et le pire c'est que ci la bêtise mais vous êtes immonde tey kan la doon neex tey ñu saaga sa ndey comme ñu def Marème Faye Sall kan la doon neex kan la doon neex kan la doon neex tey qu'on insulte ta mère comme ça kan la doon neex et vous êtes là personne ne dit rien même si on n'est pas d'accord moi je répète une fois que même si c'est une politique même si que politique la pros nga àndal kii APR la man sama yoon nekku ci APR sama yoon nekku ci pros man ñaari côté yépp sama yoon nekku ci man l'essentiel que le meilleur gagne bu pros di toog alhamdulilah bu kii di toog alhamdulilah parce que man je suis dans l'entrepreneuriat dërëmu kenn fëkkuma man damay liggéey yor sama xaalis et puis je suis mariée à un milliardaire donc moi je m'en fous je m'en fous mon mari il est sama nekku ci mais quant jàpp doomu jàmbur yaayu jàmbur bàjjenu jàmbur tel ni première dame nga koy saaga naan ko c'est une fille de mœurs légères ak cagalaak du caga ŋaayi naag ŋaayiwul naar bee ko doon tëddee diw bee ko doon tëddee dafa ñaaw Mollah Morgun Mollah Morgun xanaa yow amoo yaay Mollah xanaa amoo yaay xanaa yow même doo toog tuuti am tuuti conséquence am tuuti am tuuti hmm, comment am tuuti am tuuti je sais pas moi c'est pas man Mollah moo gën man xawma man xawma bu na laa lay qualifié Mollah yow bëgg am kut ko kut si pros dara mais pros xam nga ne tey pros bu faloon du la jël Mollah Mollah lan nga jàng je sais pas moi je sais pas je vais essayer de rendre sur YouTube vous t'écoutez parler parce que euh, euh, Mollah Mollah yow war nga am 70 ans je me retire ah kii nii kii war na am 70 ans je sais pas. ah sa benn néeg bi rek boo ñëwee toog ci sa néeg bi saaga yaayu jàmbur yi saaga baayu jàmbur yi jëw caga nga ak Marème dem ba di saaga Marème Faye naan ko Marème fay caga la ak naar bee ko la nekkoon na ne na na si je pas et puis tu es sans savoir que tey si on lance un mandat d'arrêt international tu es dans la merde je te parce que gis nga li nga wax noonu yëpp ce sont des preuves dans la merde moi je te dis Mollah Morgun Marème Faye vraiment man daal jaaxal nga ma jàpp Marème Faye saaga ko lu nekk nga wax ko bu ñu waxee nga naan non je ne suis pas dans le régime je suis je sais pas c'est comme ça que tu te bats dans le régime ku wax nga saaga ko man moom danga maa saaga ba wax noppi man moom damaa jébal sama bopp. <laughs> tu m'as insulté insulté ça fait deux mois que tu m'insultes je ne t'ai jamais répondu je te simplement arrête d'insulter la maman des gens c'est pas bien du tout et tu ternes l'image de Pros ça fait des mois tu parles sur tout le monde yow Morgan ñëpp ngay saaga saaga nga ñëpp yaa ngi saaga ñëpp saaga ñëpp saaga ñëpp waaw Morgan saaga rek nga fi nekkee vraiment vraiment man je cherche la vidéo déjà je la trouve même pas Ouf. vraiment man Sénégal nekk fi autorité dafa métti nekk fa première dame dafa métti lépp loo fa mënti nekk dafa métti et le pire c'est que je pense quand je vois des gens je cherche la vidéo je trouve même pas tellement que tu l'as insulté tu as insulté mais hier c'était pire Mollah Mollah da nga am yaay t'as des sœurs je sais pas moi yaa jigéen moo la jur tu peux pas te mettre là chez toi tranquillement naan sa ñaari vin jël Marème Faye Sall yullil ko démb même bu doon daka def même bu doon daka def même si c'était vrai et on Le passé d'une personne ne concerne personne. C'est son passé. On s'en fout de son passé. Toi, dans le passé, tu as fait quoi dans le passé tu, tu étais peut-être drogué, moi, je sais pas. Tu étais SDF dans les rues de Paris. Mola, à te regarder. Mola, tu ne... Ça se voit. T'es qui au Mola. voilà tekkiwoo dara tu n'es personne tu n'es personne tu n'es rien du tout à part saaga yaayu diw man je sais que di nga ma saaga et les gens vont être là-bas j'en ai absolument rien à foutre insulte-moi de aujourd'hui en 2024 j'en ai absolument rien à foutre moi là arrête d'insulter la maman des gens tu es irritant tu es tu es tu es tu es tu es tu es je sais pas moi man je plains ta femme ah je sais pas c'est quelle femme qui se couche à côté de toi Mais ouh, tu es d'une, tu es d'une écœurance, mais tu es, tu es, ouh, voilà, tu, tu, tu, tu n'as pas de classe. J'ai même mal à la tête de pardon. Je vais boire de l'eau. Voilà, à mon ben classe. Vraiment, à mon yar, à mon éducation. Pourquoi Pour des 4 followers, des 3-4 personnes qui te suivent. Hein? Ah, tu es, tu es abominable, vraiment. des fois da ngay sax barki yaa des fois damay rus dama naan lii Sénégal la xewe damay rus sax et puis les gens ne disent rien vraiment man jaaxle naa il dit te mosula wax pros lay défendre il défend la démocratie mais défendre je suis d'accord mais attends défendre la démocratie c'est insulter la femme d'autrui loolu mooy démocratie jël jabaru jàmbur yaayu jàmbur saaga ndeyam ba minuit saaga ndeyam une heure ba minuit loolu mooy démocratie da ngeen gis euh, da gis États-Unis ñu def ko euh, je même pas États-Unis da ngeen gis euh, je sais pas moi da ngeen gis Rwanda ñu def ko da ngeen a gis Mali ñu def ko da ngeen a gis Guinée ñu def ko da ngeen ko gis yéen rek yéen a koy def amul beneen dëkk tout le monde se défend avec des armes conventionnelles d'accord tu n'es pas tu n'es pas d'accord avec ce régime faites comme Prost organisez des marches passives défendez vos vos vos vos opinions mais insulter les parents ci amoon loo leen fay wax ba ma gëm ko bokku ci. da ngeen a dof jàpp yaayu jàmbur yi saaga ko nii il n'est pas net dans sa tête mais oui mais oui il n'est pas net c'est un malade et puis les gens qui sont là moi j'ai pas peur de Mollah Morgan je le dis si bien si haut Mollah ça fait mois que Mollah mi ngi may saaga depuis xawma Sénégal depuis mi ngi may wax di wax man je tontuwuma Mollah ba may live Mollah liveul ba may am audience Mollah amul audience li jëntiwuma Mollah faalewu ma ñaari maamu Mollah li jëntiwuma ko sama nekku ci Mollah man ak molaa bokkuñu man ak quoi que on man maa ngi Sénégal bu ñu woon ni tey ñaata sit ñaata ñaata ñaata compatriotes sénégalais ñoo xam ne ñu ngi Sénégal am nañu fi njëriñ ma ci génnee maa faale man Mollah Mollah nekk xawma fan la dëkk ci àdduna bi nekk ci néegam bu ñu waxee rek muy saaga ndeyu jàmbur loolu amul sens il faut arrêter yéen ragal Mollah man ku fa dox di ragal ci Mollah Mollah nga xam ne ab wàllu nit la ba demee nii la tool wàllu nit la seen genn wàllu nit la genn wàllu nit la saaga yow nga bàyyi sa yaay tu laisses ta maman tu insultes la maman des gens bàjjenu jàmbur pourquoi parce que tu n'es pas d'accord mais insulte son mari insulte son mari et en tiens-toi à son mari parce que son mari c'est le président Macky Sall vous êtes pas d'accord avec son régime mais madame n'a absolument rien à voir ba nga koy waxal ay fara maki gela mak lii la am ak lii la am ak lii la am sax du leen tontu ndax am na fulam boppam ñax ngeen fayda vraiment nekk fii waaw caga la woon da doon def nii après même bu nekkoon caga et après et après même bu nekkoon di mandi et après yàlla moom la def moom nekk première daam defuñ ko sa ndey sa ndey defuñ ko même bu doon sa ndey da doon muur di widd sax defuñ sa ndey nekkul première dame te du ko mës a doon ndax weesu na yow mii yaa amul foo jëm yaa amul loo wax la nga amul pros nag lu ñuy wax da nga da ngay xeexal pros pros moo leen gën a gis ngeen wax leen dara ngeen Ousmane Sonko ñi di saaga ñëpp ci internet bi ñëw ci kenn xam nga procès ñu muy jël ñoo xam c'est des citoyens qui sont corrects qui disent des mots qui sont cohérents et qui sont des gens qui peuvent aujourd'hui prétendre à un gouvernement mais pas des des des délinquants euh, ñu koy waxee délinquants de la parole comme vous un deux trois diw day màndi diw day tux diw day màndi diw day tëdd tux day tëdd day tux day màndi cagala day tëdd day tux day màndi te seen baay di ko def wala seen ndey di ko def ah vraiment man il m'a choqué quand j'ai vu je sais je cherche la vidéo d'hier là je je trouve même pas tellement qu'il il, il a il a il en a des centaines ici apparemment c'est pas sa première vidéo moi je le connaissais même pas cette fou là man daal vraiment je trouve même pas la vidéo il y en plan plein nekkati waa ji loolu mooy métier bi il y en a plein plein plein de vidéos plein de lui qui insulte tout le monde et puis man y a des gens qui l'écoutent ah c'est ça qui me man loolu moo ma intrigué voilà c'est ça j'ai trouvé la vidéo ngeen seen bopp waay góor fit mbaa mu tàppetu waay loolu la ñu wax góor fit mbaa mu tàppetu baay ragal yëpp yàlla la. góor bu saaga jigéen waaw <laughs> oh, góor yi de yàlla mu yàlla musal. Euh, kii nu tëdd di après ah. am naa ko bu yàgg yooyu man juddoo gu ma woon tuut tuut tuut tuut yooyu fekk. je suis de trouver la vidéo. Basiru dinaa la wax sa sa yaay lu mu daan mandee sa sangara yaay ja ak cigarette jëm doon tux Basiru dinaa la wax sa yaay ñaata la doon indi ci kër ga di la ko jox ngay lekk tool ya nga doon bayee Basiru ba nga doon toog fa du sa jàmbur ya nga doon puub yow Basiru Gueye sa sa cursus sa dund sa dund danaa daa ko raconté fii Basiru Gueye sa ndey sa baay say frère Souleymane bu nga jaaree euh, lycée Thiès ba ba université Ndakaaru lépp la nga def magistrature fa nga jaar ak facture sa santé nga liggéey lépp dinaa ko qui dit ça Mollah moo la ëpp attends je te réponds je te réponds je te réponds je te réponds je te réponds Pape xaw ma nga Pape tu as raison Mollah moo ëpp followers parce que ñi koy topp ñëpp c'est des illettrés y a que des imbéciles qui suivent Mollah je suis désolée et c'est normal il a une parce que vous êtes comme ça. Vous êtes comme quand on parle de sexe et quand on parle de cul, tout le monde est là. et vous mu il vous livre que ce que vous voulez entendre Sénégal yéen a bëgg mbirum awra birum tëddante birum naanante yéen a ko bëgg dañuy waxante dëgg yéen a ko bëgg Man, combien de fois j'ai fait des vidéos quand j'étais malade, je parlais de sexe, mais j'avais jusqu'à personnes qui me suivaient parce que je parlais de sexe. Et quand tu parles des choses qui sont utiles, personne n'est là, les gens ne t'écoutent pas, ils n'ont pas ton temps. Mais Mola peut faire ses vidéos. J'en ai absolument rien à foutre des vidéos de Mola. Je ne cautionne pas Mola ce qu'il dit. Il ne peut pas passer son temps à insulter Marem Faisal vous avez aucun respect amu leen benn joxo leen seen ndey cër joxo leen ndeyu jàmbur yi cër et avec ça ngeen bëgg dëkk bi développé fu muy développé wee ay mbaam comme yéen nekk ci dëkk bi ku nekk yi fu mbaam rek moo leen intéressé diw jaxasoog naa ak diw ñeen ñëpp ngeen bi seen xool déglu diw tëdd naa ak diw yéen ñëpp ngeen ñëw diw mi ngi def lii loolu rek mais tey jii bu ñu defoon tafsir bu ñu defoon tafsir comme ça tey tafsir nekkoon en direct man ma nekk en direct ñëpp la ñuy bàyyi tafsir dem def si ku ci waxu caaxaan yi ak cakaay yi émission tafsir yi kenn amu ci deux vues kenn amu ci ñetti vues yàlla nee na kenn amu ci ñetti vues waaye bu Dash ngi na leen di wax ay waxu intiment tëddante ñëpp ñëw fa vous êtes comme ça et les gens ne vous savent que ce que vous avez envie de de ce que ce que vous voulez voir en fait mais moi ce que Mola la vidéo de lui que j'ai vue parce que moi je ne suis pas Mollah je m'en je m'en cest à que du ma dem YouTube sax man du ma dem YouTube sax man ba tapé Mollah Morgun du ma ko sax xool ba may saaga di ma clash du tey ça fait deux mois que Mollah di ma clash di ma saaga ci wax lu ma wax mu génn wax ma je m'en fous de Mollah je ne le connais pas Mollah sama moromu baay la Mollah boo xoolee carte d'identité xool nga peut-être il est de 1969 wala mu nekk 76 mag la du xale yéen nag ay xale ngeen votre avenir est devant vous a je me dis que si quelqu'un doit se battre vous devez vous battre pour vous mais n'écoutez pas des gens qui vont vous conduire en erreur ngeen dem di leen déglu dem ba seen xel yi di xalaat la muy xalaat c'est faux et archi faux mu laa amu fi kër Sénégal amu fa kër amu fa TF amu fa boutique amu fa sax pantre man tey ñi ma gën a fonk Sénégal mooy xale yi ma xanaa goo man man man je suis Sénégal fa laa dëkk quand je vois des jeunes yoo xam ne dañuy nekk nekk ci ci ci ci ci je sais pas moi il y a un jeune là il s'appelle je sais pas euh, 6.9 euh, 6.9 je sais pas il s'appelle comment je sais pas comment il s'appelle Abdoulaye je sais pas quelque chose mais il a dafa ubbi atelier de couture et maintenant je l'ai vu à la, à la Maison Blanche avec Tchonia oui ça c'est des gens que moi je suis fière de regarder de les suivre malgré qu'ils sont plus jeunes que moi mais ay référence lañu Sénégal Abdoulaye moom moom 6.9 da doon jaay il l'a même dit il a commencé par 1500 aujourd'hui il est à la Maison Blanche avec le président est-ce que Thione Niang gis ngeen ko muy saaga président bi est-ce que Thione Niang non Thione Niang il n'est pas d'accord peut-être avec ce régime-là mais il est dans l'entrepreneuriat war na leen yoon bi il est là avec les prisons spawn partout et y a tant d'autres y a tant de de de d'exemples comme ça Mollah lan la teg ci réew mi lan la def defu fi dara kenn xamu ko fi lu dul saaga président de la république tey saaga Marème fay tey saaga kii tey saaga Nabou Dash saaga yaayu diw Nabou Dash sa yaay cagala woon man xam naa moom fa la jëm ak man man moom xam naa la sama yaay cagala woon waaye li ma gën a neex ci bi mooy Mollah comme man samay parents ay étranger lañ xam naa ne man boo doon gëstu gëstu gëstu gëstu doom wax leneen lu dul yow nga xam ne cinq fois nga divorcé yow nga xam ne euh, quatre fois la divorcé quand même ah pour booy waxaat quatre fois la divorcé cinquième fois la mariée je suis pas divorcée j'ai fois et là je suis encore dans mariage d'accord pour booy wax waaw Nabou Dash yow yow dimbali ma caga nga yow nga xam ne sa ween yi silicone la yow nga xam ne sa taat yi silicone la yow nga xam ne fii ah waaw yow nga xam ne quatre fois nga divorcé yow nga xam ne waaw yaa ah, loolu rek nga may wax amoo leneen looy wax t'as absolument rien à dire T'as absolument merde, t'as absolument rien à me dire. Et si tu me réponds, je te dis quatre fois ton mot dia. Moula Morgan, si tu me réponds, moi je vais pas te répondre après parce que j'ai pas ton temps, mais mille fois ton mot dia et puis tu n'es pas une référence. Enlève-toi de la tête. Les jeunes t'écoutent parce que tu es un imbécile qui fait rigoler la galerie. Personne, non, on s'en fout de toi, Mola. On s'en fout de toi. T'es là à insulter la maman des gens, les trucs des gens. Même si Mariam Faïssa c'était une pute, même si c'était une pute, même si c'était une traînée, même si elle a fait ce que tu as dit, même si. Mais c'est son passé. On n'en a rien à foutre des passés des gens. Toi, tu as un passé, Mola. Tu as un passé, Mola. Tu n'es pas blanc comme neige. Ku la xool rek nga xam ne ancien toxicomane nga ancien détenu nga dangaa rëcc xaw ma ban prison xaw ma Guantanamo de la gisul xaw ma fu mu jógee tu es un ancien détenu Mola Morgan tu as fait de la prison tu as un tu as un comment ça s'appelle euh, ah, merde comment s'appelle le là tu as un cert... Euh, non pas certificat médical ah tu as casier judiciaire Mollah gis nga Mollah man je suis un citoyen sénégalais te su ma neexee dem Sénégal léegi léegi léegi nii te coow du jib man kenn du ma lancé mandat d'arrêt kenn du ma arrêté dewma prison sama yoon nekku ci damay liggéey di fay nit ñi politique gu ma sama nekku ci mais bu mu la gisee ngay saaga ay kilifa di saaga yaayu jàmb saaga ma rem moi ça me fait mal. j'ai ça me fait mal ça me fait mal man maa gën a contre Marème Faye maa la gën a contre son excellence parce que man mi yor samay entreprise ñu indil ma ñu indil ma euh, ñu indil ma ñu indil ma lettre d'huissier bu trois cent cinquante millions yow loolu yëgoo ko et pourtant saagaw ma ko loolu moo waral sama magasin yëpp tëj parce que ils m'ont amené euh, comment s'appelle pas l'huissier moo m'ont amené euh, Ils m'ont amené une, euh, euh une sommation de millions, comme quoi que j'ai pas payé les impôts pendant deux ans dans mes activités et j'ai pas pu payer. ils m'ont saisi tout. L'État m'a tout saisi. On m'a tout saisi. On a tout fermé. Mais je n'ai pas insulté la première dame. Je n'ai pas insulté je ne pas d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui j'ai tout perdu, mais je n'en absolument rien à foutre. Mais j'ai une autre façon de faire mes choses. je peux peut-être suivre le, la procédure judiciaire ou peut-être attendre que Sonko inchallah prenne le, le, le la présidence mais de là à insulter yaayu jàmbur yi di leen lu nekk nga yekk leen ci internet bi yow caga ngaak dangaa da ak dangaa ŋàppeeku te sa yaay di ko def te sa baay di ko def mu laa mëgg mënoo fay xas kenn fii koo xasu du la xas fii koo fi kuñ kuñ comment ça s'appelle mère journée absolument putain ça ça ça m'échappe le mot fii ku ku la fi xasul doo fi xas kenn am yow koo war a xas mu laa moo gën xool sa bopp koo war a xas yow mënoo xas kenn mu laa man du jabar du doom wala da am ay doom te duñu ko nëbb mu laa yow du jabar du doom du jabar du doom yow yow mu laa musuñu laa gis mu laa Morgan vient en vacances au Sénégal mais mu laa góor tu es sénégalais ak la moindre des choses tu aurais dû venir au ah, du def social man mosuma gis Mollah Morgun dans le social xaaral ma tapé Mollah xool ba xam mosuma gis Mollah Morgun musuma kaa gis mu laa mëgg au Sénégal sax man musuma kaa gis xaaral xaaral ma xool man tàppi moo laa morgan social ba xam peut-être nga ma ko de xaaral moo laa euh, moo laa moo laa moo gën social xaaral ba xam teg ngay social duñ ko gis de ma xool ba xam social nga xool ko tuñu màndikat yi waxal moom du social gis nga maanaam Morgan moom mosul social moom moom daal mi ngi ci saaga nit ñi saaga artistes yi saaga première dame ku nekk ci régime bi nga saaga ko wee <laughs> toto wala bëgg dafa ne xool leen ko hmm, c'est un idiot contre attaque waa Pastef farul fenn ndeysaan billaay kon nag merci beaucoup parce que yéen a non jamais yéen a ngi may bàyyi xel. sénégalais yee ko def te yéen ñi la déglu. fas yéene wu ma leen trahir. n'importe quoi il se donne de l'importance vous êtes malade c'est c'est c'est c'est un malade ce type. bon c'est un malade je viens wii pip pip pip pip pip pip c'est malade c'est malade mental kii wiru pip pip pip pip moom daal yoonam nekku ci social molaa du social molaa du wax bu rafet molaa daal saaga rek ah molaa critique na bu daaj

C'est un malade, un malade mental ce type. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui continuent à suivre ce malade-là. Man Sénégal, jaaxal ngeen ma jaaxal ngeen ma ñoo xam ne vous êtes que dans la futilité, que dans la futilité, que dans la futilité, que la futilité. Franchement, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, ce pays-là, vous me faites peur. Jaaxal ngeen ma am ngeen melokaan yéen daal nii rek. dof bu jug rek ngeen ànd ak moom man comprendre ma yéen ñëpp ngeen toog bu regardez le type faire et vous êtes là on voit le changement quel changement ce pays ne va moi j'ai toujours dit ça le Sénégal ne va pas changer il va pas changer aujourd'hui il va pas changer demain la jeunesse que nous avons c'est une jeunesse qui inconsciente jeunesse boo xam ne ñoom jàpp nañ ni lépp saaga moo koy faj ay duul ay day ay sa ndey ay sa baay rek moo koy faj au contraire au ngeen jug jéem a liggéeyal seen bopp utal seen bopp non vous avez pas le temps vous avez le temps que d'écouter les gens qui vont insulter la maman des gens et moi je suis choquée hier j'étais choquée mais comme je regardais la vidéo il faisait je pense minuit une heure je pouvais pas venir en live à une heure du matin ou minuit pour dire ça mais je suis choquée de la de la personne de Mola Morgan moi je me dis man est-ce que am na ay mbokk c'est horrible ce qu'il est en train de dire Prost n'a envoyé personne insulter personne. Prost n'a envoyé personne insulter personne. Vous êtes les seuls à insulter les waaye du gis nga duñ def sa mbokk saaga moom ku ko fi def dañ lay jëli dañ lay jëli ak foo mënti dañ lay jëli ñu teg la ci suuf continuer sa yoon nga rek bañal changé say waxi même bu dee sax te pas d'accord mais épargne Marème Faye épargne Marème Faye Marème Faye lu mu la def 1 2 3 Marème Faye caga la même bu nekkoon caga lan lan lan moo ci suñu yoon Mais on s'en fout de son passé. Qui n'a pas un passé ici Qui n'a pas un passé ici Qui, qui, qui, qui n'a pas Bam d'idiote que vous êtes. 50 ans, TikTok defend avec Mustapha Djem. Ah, mais je te jure. Ah, man daal man daal seen seen seen dëkk bi daal man daal xam naa ne man xaw ma kan waaye man mi du ma gaaw a ñibbisi diggante Congo ak Burkina euh, Congo ak ak ak ak Cotonou. fa laay toog ba ci kanam dëkk boo xam ne saagante yàqante saagante yàqante saagante ak dof loo wat ay nit man moom bàyyil moo toog Cotonou Congo Cotonou ba ci kanam vraiment ba ci kanam daal man ni jaaxal na ma tey moom je suis d'accord avec toi Mollah dafa reew non c'est pas réewoon de reewul moo laa réewul dafa dof dafa dof parce que nit ki même boo jàngulee sax tu sais que il y a ce qu'on appelle un respect étatique tu ne peux pas insulter une première dame comme ça de sa nudité en plus bu doon def ne comme tout le monde fait là Marème Faye lii lii mais carrément génne ay photo ne diw naa da ko tëddee da doon wër c'est c'est dég c'est dégradant en fait c'est dégradant et puis c'est insolent et puis il n'a pas le droit quoi qu'on puisse dire c'est la première dame il n'a pas le tu peux insulter Nabou Dash on s'en fout Nabou Dash n'est personne d'accord mais tu insultes une première dame comme ça nga toog sa kër nelaw mu laa tee ngaa yeewu dootoo nelaw de xaw ma dangaa am ay secret xaw ma dangaa am ay relève révélation d'état di nga ko génnee de parce que secret yi am di nga ko génnee xaw ma am ay révélation d'état xaw ma dangaa am secret secret bi dina génn moo laa moo dootoo nelaw moo laa réew mi fi mu ne nii yow la ñuy seet fi mu ne nii contacté nañ autorité yëpp fi mu ne nii yow xoolal boo génnaatee ñoo doon ñiix indi Sénégal nga toog def nañ ko fi say morom du gis nga leen waaw baax na continuer Focus 2024. Mais oui, mais oui, c'est mieux. Focus 2024, son connect président, c'est mieux que d'écouter ces imbéciles-là insulter sur Internet. C'est n'importe quoi, moi, ce type. Moi, la morgue, ni qu'elle s'étend avec Adiko suivre la hier. Euh, Kanding Diouf. Mais au Sénégal, c'est ça. Hein? Et en, en, même temps, c'est la vérité de ce pays.

et je suis dans le plein vaudou. Voilà. Comme ce que tu as dit là, c'est ce qui est ça, là, c'est ça. Je suis à Cotonou dans le plein vaudou. Voilà. Ça, je ne pas me défiler, c'est là même. Je fais Congo vaudou et Cotonou vaudou. Bon, mon air. Voilà. Maintenant, si ça te dérange en quoi, ça te dérange en quelque chose, tu me le dis. Je suis dans le plein vaudou et je le fais pion et taille. Et si tu redis ça, je prends ton nom, je le donne à mes grands-parents. Toi, tu vas plus vous avez dit, hein, je joue plus, moi. Je suis pas dans vos bêtises là. Il n'a pas de papier en France. Mais oui, c'est juste. Euh, qui a dit ça déjà Awa Faye. Tu sais, Awa. Moi, je ne connais pas ce, ce, ce, ce cet énergumène-là, je ne le connais pas. Mais tu sais, quand tu regardes une personne qui est responsable, at least, ça, il sort des choses sensées. Mais moi, là, man, moi, beaucoup gis. Moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, Et tout le monde sait qu'en Europe, moi j'ai été en Europe, personne n'a le temps de faire 4 heures de live ou 5 heures de live. Adamo, quoi qu'on puisse dire de Adamo, au moins Adamo, il fait ses lives le soir. Et on le voit dans son restaurant en train de faire la cuisine. On sait qu'Adamo a un travail. Mais Moula Morgan, je ne sais pas si je suis dans le métro, ou je suis dans la ligne 2, ou je suis dans le RER B, ou je suis dans le RER A, je suis dans si je suis dans le saaga Macky Sall saaga euh, saaga Macky Sall saaga Marème Faye saaga Macky Sall saaga Marème Faye léegi bàyyi na saaga Macky léegi mu ngi ci Marème Faye man bu doon saaga Macky sama yoon nekku parce que ñoom seen affaire la et puis seen affaire de politique la man je suis pas dans la politique mais Marème Faye ak lu doon tey yaay la euh, bàjjan la jigéen la et góor la bu nekkoon góor dëgg comme ni nga koy wax il a les couilles na saaga Macky na bàyyi Marème parce que góor dëgg du saaga jigéen yoo xam te dëgg góor buy saaga jigéen góor jigéen la góor dëgg da ngay dem fight di jëntiku ak say moroomu góor xam li ma la wax nga teg jigéen ñi ci suuf parce que yow bu jigéen jurul wala amoo jabar je sais pas whatever we call it putain man ce gars man j'ai plus envie de parler de lui c'est c'est le pire des imbéciles de la toile et moi j'en ai absolument rien à foutre qu'il réponde qu'il réponde parce que ñi saaga ñii ñëpp ñoo ma ëpp ñoo ma ëpp martaba fuuf ñi mu fi saaga ñëpp donc su ma saaga j'en ai absolument rien à foutre c'est juste de la publicité qui va me faire c'est un imbécile en plus il est vieux moche moche et vieux yoroo tous yoroo dara ñaaw màgget ras gàtt ñuul pare teg ci pauvre bu ñu waxee nga ubbi sa gémmiñ gu rëy gi naan saaga nit ñi di saaga nit ñi yow koo mën a saaga yow moo laa moo gën ñàkk classe rafetul yiiwul yéen a gis taaram kii kay ñaaw la def ñaaw ñàkk classe bu paree modde bu xëyee sol ay pull-over-am yooyu sol ay lunettes yi naan euh, Mollah Morgun si si yow sénégalais nga tuddoo Mollah Morgun Abdoulaye Jaxate nga tudd kenn xamu noonu tudd xaw ma Abdoulaye Jaxate xaw ma Abdoulaye Kamara tuddoo benn Mollah Morgun waaye Mollah Morgun di duul di dajale di day sa ñaawaay ak sa gàttaay ñàkk fayda bu bëgg a topp jigéen di leen saaga rek cëpp mel ni jigéen juru la kii Euh, Tamsir Fall, tu cherches le buzz. Tamsir, tu sais pas que c'est moi le buzz Moi, je m'appelle Naboudash, et que Khalé Buzz. Tu sais man man lu muy bës kenn bësu ko déggoo ma de ah ma ay tu cherches le buzz fay rek bëgg a dee. Euh, même je me demande comment il fait pour vivre live 5 heures tu peux pas faire <laughs> tu peux faire <laughs> Live c'est que tu peux faire mille ans de dire. Ma chérie, ne dis pas moi aussi, je faisais des lives jusqu'à 5 heures du matin. <laughs> non, ma bul wax loolu man tamit defoon naa fi ay live yu gudd de bul bul ma xasaale. man moom dama dama laa doon saaga Nabou Dash nga xam mais vraiment depuis ma lay suivre xam naa ku baax nga maa ngi jéggalu bu baax tout est possible non grawul bilaay grave man xanaa xamoo ma li ma gën a neex ci àdduna mooy samay noonu démb doon samay soppe loolu ma dàq parce que loolooy loolooy sama avantage loolooy ma bëgg samay doon nekk samay soppe samay soppe sama samay soppe samay soppe ren nekk samay noonu de euh, samay noonu suba donc la vie c'est comme ça macha allah nabu nice na trop dash moom ban tur la Oh, mais arrête, Emily, tu vas pas me comparer avec Mola Morgan. C'est lui. Quand même, Moi, au moins, j'ai le, j'ai, Nabou. Nabou. <laughs> Dash, ce sont mes boutiques. Les boutiques que j'avais Dash, c'est pour ça que les gens m'appellent Nabou Dash, à cause de mes boutiques. Donc, moi, au moins, mon Dash, là, ça représente une entreprise où les gens travaillaient, des Sénégalais travaillaient et que je payais des gens. Donc son Morgan là, jusqu'à là, je n'ai pas vu une boutique Morgan. Je n'ai pas vu une boutique Mola Morgan, je n'ai pas vu une entreprise Morgan, j'ai absolument rien vu. Donc me Morgan, c'est non seulement m'insulter. Et si tu le reprends, je te bloque. Man duma sama morom. Boy comparer à quoi il n'a absolument rien foutu pour la société. Moussoul social, d'un gars comme ça qui sort de nulle part sur les réseaux parce qu'il y a des imbéciles comme vous qui se permettent d'aller suivre des gens comme lui pour écouter, insulter une première dame et vous rigolez. Vous rigolez de ça. C'est drôle quoi. Ça vous fait plaisir. C'est la guerre mondiale. Qui a dit ça D'abord Malé. Ce la guerre entre, entre lui et lui seul. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre à Mola parce que Mola, je ne le connais pas. li mu wax démb si Marème Faye parce que je suis tombée dessus et j'ai écouté ce qu'il a dit et quand il a commencé à parler que c'était une femme de de de ce qui m'a le plus choqué mooy ba mu ne Marème Faye dafa oyof sër après mu ne c'est une femme de mœurs légères et puis il le dit sans remords il le dit sans je pas voilà il est serein ça m'a choqué et c'est la première fois que ma xool Moula Morgan man Moula Morgan xaw ma je ne suis même pas jamais j'ai parlé de lui c'est la première fois que je parle de lui et je trouve que c'est une personnalité qui est immonde c'est un c'est qui est méchant et il ne mérite pas d'être sénégalais lui ne mérite pas parce que tu peux pas insulter quelqu'un comme ça sans même avoir une retenue sans même nga conscience de ça soi-disant que tu te tu te pour la démocratie des Je ah, te bats pour ta démocratie, tu te bats pour ton mensonge, oui. Il est malade, ce type. Mora kër euh, Mora kër la yor euh, bàyyil Mola Mohamed Niass Mola c'est nom de rappeur Mohamedou Niass Mola c'est son nom de rappeur Moi, j'en ai absolument foutre, rien à foutre de son nom, comment il s'appelle. Voilà, c'est un rappeur qui n'est pas connu. kenn xamul Mollah Morgun ci rap rabaa kon rab nga raba raba raba amoo benn trophée amoo benn disque d'or sa morom yi xale yaa ngi nii de rab ñoom Samba ñoom Dip Doundou Guiss ñoom Samba Peuzzi ils sont là ils sont en train de yow da rab ba xamatoo loo def tu viens tu insultes les gens comme ça c'est de n'importe quoi moi tu me te bloque vraiment Sénégal ngeen ñàkk fayda Vous défendez la liberté, vous insultez les gens et vous êtes tout heureux. Vous êtes tout content. Voilà. Un, deux, tu parles, tu bloques les gens. Yaay Émilie, je vais te bloquer comme ça. Toi, tu vas plus voir mon live. Dégage. C'est ma page et je bloque qui je veux. Voilà. Si tu es pas content de comment je fonctionne, je te bloque. Voilà, moi, tu me suis, tu dis ce que je dis, tu parles bien, tu es respectueux. Tu as un manque de respect, je te bloque tout de suite, tu vas voir. Ailleurs, j'en ai absolument rien à foutre de qui me suit, qui ne me suit pas. Mais si tu es impoli, je te montre que je suis impoli plus que toi, aller et retour. Malgré aller et retour. Regarde, Nous sommes en page, demande, demande une de morale. Qui t'a appelé C'est moi qui t'ai appelé Espèce de chien vert. Nabou Maki ah vraiment li problème de même mais laissez-moi avec Sonko Nabou Sonko 2024 Nabou daal je veux ton numéro non non mon mari me l'interdit xam nga rek mon mari li est très jaloux quoi il me l'interdit ah je prends des commentaires vite fait namoon naa leen nag vraiment Mollah Morgun moo ma soof rek démb ak vidéo bi wër na yàlla mun mun ko muñ c'est un ñaawaayam ak gàttaayam tuutiwaayam góor sax da ngay ñaaw am xaalis góor dangay ñaaw sax am dara man dàkkoon naa nga ñaaw nga ñuul nga gàtt nga ñaaw may nga am tuuti xaalis nga am loo xam ne au moins di nga ko mën a bëggalee sa soxna bëggalee ko say ami jàmbur bëggalee ko sa waa réew di social ku feebar ñu woo Mollah Morgun ku accidenté ñu woo Mollah gën xale bu ñu bëggee génn ñu woo waaye Mollah Morgun da dangay gàtt ñaaw. tuuti bu paree yow ku la xool xam ne yow 60 yi moom mën na ci bu paree yoroo dërëm fi mu ne nii wax gi nga yuut yi nga yuut yëpp pour am dara la mais doo am tous doo ko am parce que yow kenn du la fal pros du la fal PF du la fal yow bokkoo bokkoo APR bokkoo prose yow bokkoo fenn parce que da ngaa tu ñaaw nga tuuti nga ñuul nga yoroo dërëm pauvre nga këyit sax amoo ko moo nekk yow sans papier nga loolu lañ ma wax fii léegi yooyu ça peut fier oui te boo ñëwee Sénégal ñu arrêté la ça peut fier tu viens au Sénégal on te fout en prison injure publique yaa xam nga loolu man mii sax même moi on m'a foutu en prison pour des injures j'ai juste insulté mon mari moi je n'ai rien fait je n'ai ni insulté le président je n'ai insulté, <laughs> ni insulté la première dame moi j'ai insulté mon mari et on m'a mis en prison gentiment pendant 24 heures mais toi gis nga boo fi ñëwee dana laa ñiir ci kaso bi yow moom fexeel bul bul bul bul bul bul bul bul génnaat di wax yow toogal nopp parce que li lay gis nga tous les dossiers que tu as là si on te fout en prison toi on va te déférer directement continue ñàkk fayal bëgg a dem comment t'as fait pour que les cheveux poussent euh, je sais pas c'est un secret <laughs> c'est intima c'est intima c'est intima c'est intima c'est intima c'est intima il y a les jaloux qui vont dire que c'est une perruque Les gens vont dire qu'Anabou a fait une perruque. <laughs> bon, mes fans, euh, mes bébés, Tata Naboudash, I love you. Mmh. Madame Ndiaye. Madame Jai Savon is back. Je connais pas c'est qui. Euh, Abdoulaye Ahad Ndiaye Fen. Abdoulaye, go, tu sais que tu am cadeau. Tu dois être respectueux avec les mots, Abdoulaye. Pas bien d'être impoli, tu sais. Il faut pas aller. Il faut pas y aller, il n'a pas de papier. Il peut pas y aller, il n'a pas de papier. Tu es un lâche. Hein? C'est arrivé là-bas. Je sais que tu respectes tu, je sais que tu respectes euh, Mola, mais li mu wax la première dame moo la gêné. Tu as raison dama ruus nag. Euh, Mam Djemé Ndiaye. Avant de respecter quelqu'un, Mam Djemé, je pense que dans quoi Moi, je dis encore que je ne respecte pas Mola, je ne le connais pas et je n'ai pas envie de le connaître. Moi, c'est pas les gens que je suis. Mola, c'est pas le style de personne que moi, Nabouda, je vais suivre. Je ne suis pas Mola. Moi, quand je suis, je suis des gens comme Chonyan, je suis des gens comme Abdoulaye de, de, de 6.9, je suis des gens qui sont sénégalais, qui sont de ma génération ou peut-être un peu plus âgés, mais qui font des choses concrètes. Je ne suis pas des détails dans les Facebook, là, des Mola Morgan. Il va me porter quoi Écoutez, Mola Morgan va changer quoi à ma vie Écoutez, Mola Morgan va m'emmener où Je suis désolée. Il n'y a que des idiots qui vont écouter Mola. Moi, j'écoute pas Mola. J'en ai absolument rien à de lui. Encore une fois, je ne le respecte pas. Je m'en fous de il peut pas insulter la première dame comme ça impunément toog di di di fen ak gémmiñam bu ngande boobu ak ñuulaayam ak ñaawaayam après ñàkk xaalis n'importe quoi lui <coughs> Anta Niang Anta Niang Sall jugal ñu apprécier tes rondeurs Anta Niang Sall tu es lesbienne toi Anta Anita ana jigéen nag apprécier forme jigéen tu es une lesbienne toi Nabou one avec toi toujours Nabou jugal ñu apprécier Anita arrête tes la là s'il te plaît si tu le redis je te bloque ñaax nga fayda torop naa ma jugal ñu apprécier say rondeur très joyeuse Nabou j'avoue donc laisse-moi tranquille Abdoulaye Faye Ndiaye Mawlana kaa laisser les gens tranquilles na wax leen Mawla mu bàyyi saaga ndeyu jàmbur yi ak yaayu jàmbur yi na ko arrêté loolu du cër loolu du respect dëgg du yoon nay wax na wax ay preuve yu mu am gouvernement bi sàcc la na wax lu ko neex parce que d'accord naa sax gouvernement bi ay sàcc lañ ñoom ñëpp d'accord naa mais quant saaga yi muy saaga dafa ñaaw tool yi Marème Marème Faye tool ni première dame man toog toog ma ne guddi guddeeg bëccëg cagalaak cagalaak cagalaak cagalaak dégg nañu cagala waaye léegi nag hmm? cagala cagala cagala cagala cagala cagala d'accord on a compris cagala et après ñu ñoo ko bëgg ba keroog yaa di ko fi foolu yàllaa ko fal tamit président c'est pas donné à n'importe qui il faut un minimum de respect respecté woo kenn ko xam ne respecté woo sa jabar respecté woo sa yaay déjà si toutefois am nga jabar genre góor ni yow rek man ñoo may indisposé man putain ñaaw bu pare yoroo dërëm bu ñu waxee rek nga ubbi sa ama naama gu yaatu bi di feneen ko duul fii naan ay Marème Faye ak kay Marème Faye ak waaye ñaako fay la la maîtresse des femmes ah. bonjour bon dimanche ma soeur merci merci Nabou tu es je suis au Congo ah. Courage, Karim Konate. Merci, Karim. Tu mon ami, mais laisse-moi là tranquille. Abdoulaye. Abdoulaye. Abdoulaye, tu, tu comprends Wolof ou tu comprends français Abdoulaye, tu m'as insulté sur ma page. on se connaît pas toi et moi. On fait pas la guerre toi et moi. Mais ton gars là, demande-lui d'arrêter d'insulter. Nabaye Saga. Qu'il arrête d'insulter la première dame. C'est tout ce que je lui demande. C'est tout. Sinon, moi, j'ai pas de souci pour lui. tu vas où Bassala Kaboité, tu vas gâter tes cheveux Tu as pris ça il n'y a même pas un mois. Tu vas gâter tes cheveux. Et ça la beauté. Oui, ça c'est tu fais ça une fois par mois. Au bébé c'est ce qui n'est Ah yo, ça n'a pas de problème, les autres me ça yo. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Au bébé c'est ce qui. Ça la et moi et moi, ce qu'on s'allait yango. Prochaine fois ce qu'on s'allait ah nous c'est bolongo. Mon yanga ah nous c'est longa non. C'est ça, c'est bon. Eh. wana problème na soki yango olingi olesimba titala non ça c'est oti gel ça va passer ah, oh. <laughs> passerelle hein t'es pas sérieuse injustice injustice attends je vais lire à partir d'ici j'arrive pas à lire de là-bas je vais vous parce que mënuma leen lire foofu xam leen dof bi mm, Mollah day xom ñàkk fay saaga jigéen ñi daa même pas mais tu tu fais quoi tu passes devant moi comme ça ah. ah. gis nga ni. yow saa Ok, Noah. Celle, celle qui te fait les, les, les mazas Aïe, ah, quoi ça On va de l'autre côté. Je vais prendre les commentaires ici. Euh, Ahmad Ndiaye, quand même, attaque là. Bon, Ahmad, je te bloque. déjà fii sa morom nekk fi donc tu vas te voir bloqué euh, tu parles quoi comme ça je parle lingala euh, je parle lingala donc c'est la langue euh, c'est ma langue maternelle c'est la langue du, Congo je prends des commentaires à partir d'ici tu es, tu es ma jolie, mais je veux que tu laisses euh, Mola tranquille. Mola, c'est un imbécile, tu sais. Euh, Nabou, mm, Nabou, Yen, Saengai, Neko, Sukana. J'ai rien compris. Bon, les chéris, je vais y aller. Je vais y aller.

sans aucune éducation de base, il n'a aucune personnalité, il insulte les femmes, il est... en plus il est moche, il n'a pas d'argent. Franchement, vraiment, je Je plains beaucoup ça à son épouse là qui lui sert de, de, de bouche-trou, cordialement. Tu es ma jolie, mais laisse-moi la tranquille. ne pas sérieux une femme mariée, même si elle fait une vidéo, non pas sérieux une femme mariée, nanana. Bah, il bloque Gaï. They you for. Fille, quest D'accord, c'est ma page. Tu m'insultes, je te bloque. Tu dis un mot impoli, je te bloque. Tu me dragues, je te bloque. Je suis une femme mariée, tu le sais pas, je le sais. Tu le respectes pas, je te bloque et tu sautes ailleurs. C'est compris? Si c'est moi qui dirige, c'est moi la bosse. Tu dis, je te Tu parles, je te Tu cries, je te Tu comprends Voilà. Hi, beautiful. You are looking beautiful as always. Fatuma Taraham Coker. Thank you, Fatuma. That's so sweet from you. Antagnan, Nabou, comment t'as fait pour avoir tes cheveux Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, en moins de deux mois, mes cheveux ont poussé. Je me suis tressé des mèches. <laughs> C'est Intima. Nabou, euh, Barngeken, Genula. Stay blessed and may Allah be with you Thank you. bàyyil bloqué bi nag dangaa dañuy foo yow luy argent Khalil Ndiaye Euh, Khalil Ndiaye nee na luy argent l' argent c'est ce qui te permet de manger de te déplacer d' être correct t'habiller normalement de subvenir à tes besoins aux besoins de ta famille et de ta femme Khalil mais comme tu es un chômeur je dois être obligée de te rappeler tout ça comme ça tu vas avoir peut-être les les de quelqu'un qui, a la valeur ou le sens de l'argent. Mais comme doo liggéey xamoon ni que l'argent durement travaillé ça se voit et ça se conçoit mais comme yow da nga nekk ci chômage on doit toujours tout te dire espèce de con. si même on te regarde tu vas bloquer j'espère. <laughs> bon bisous les chéris euh, je vais y aller On va de coiffure. Hein? Je vais aller de coiffure. Non, le bonnet. Non, le bonnet. Au revoir les bébés, bisous bisous. C'était juste un petit coucou, de de remettre un peu euh, de la République là à sa place, ce gorille humain là. Et j'espère que jàmm dina yàgg Sénégal ngeen gën a bëggante ngeen wàññi seen xuloo beeg seen xeex bi vraiment c'est honteux. Bisous bisous. Je fais un bisou à tout le monde et on se dit à très vite mes amours. Bisous. Nabou il est temps nga bàyyi direct xew aayul xew mooy Aïssatou Diop on te suit plus Aïssatou ay Aïssatou Aïssatou mais qu'est-ce que tu fais dans mon direct alors si tu me suis plus il y a une contradiction Aïssatou c'est moi le boss mais pas toi ok y a pas de souci li ma si gën a metti mooy dañuy dañuy ñëw sama sama live ne ma suivre tuñ ma. jox ma ay turu nit pour ma wax turu nit ki mais dama wax benn tur je donne en fait vous comprenez pas que je donne je fais plus la publicité je ne fais plus la publicité si tu ne me suis pas c'est pas mon problème l'essentiel ce que j'ai dit tey su ma li ma wax nii yëpp su ma xëyee après dans même pas une heure de temps tout YouTube va va être au courant tout le monde sera au courant de ce que j'ai dit c'est l'essentiel mais quand ngeen dugal ma ci seen affaire yooyu noonu ma wax tur je dis le nom de personne J'ai dit ce que je dis, j'ai fini et je coupe mon live. Maintenant, si tu n'es pas content, ma chérie, c'est ton problème. D'accord Bisous, bisous. Bisous. Mouah.